jërë ngeen jëf mbokki euh, internet yi gannaaw ba ñu leen nuyoo ñu ngi leen di euh, jaajëfal yi ñu ñuy teewlu seen bi di yi dal leen ak jàmm kii di Pape Moussa soow moom nag dal dina yëkkati ay kaddu moom Pape Moussa Sow ca kàddoom yooyu lee mooy xam ne nag jamono ji nekkatuñ fii di xool programme ak yu ni mel jamono ji nag dañuy wote woteel ki nga xam ne moo di Bassirou Diomaye Faye moom Pape Moussa nag lu ni mel la daal di xamle ne jamono ji nag dañoo war a woteel kii di Bassirou Diomaye Faye ngir nag dal di tekki jëng yi ngir dal di génne ñi nga xam ne nag ñoo dal di nekk foofu ci kaso bi moom Pape Moussa kàddu yu ni mel la dal di yëkkati wax na jamono ji nag luy jot rek daal di na jot moom Pa Moussa kàddu yu ni nag la dal di fësal jamono ji nag mi nga xam ne rek. jamono ji li ñu war a def rek mooy dal di woteel ki nga xam ne nag moo di Bassirou Diomaye Faye ngir nak ñu dal di génne ñi nga xam ne ñoo dal di nekk foofu la ca kaso ba te jaay doole daal di leen fay yóbbu moom Pape Moussa kaddu yu ni mel la daal di yëkkati kaddu ya nga xam ne moom la kii di Pape Moussa daal di yëkkati. c'est le rendez-vous de la libération de Ousmane Sonko ainsi que tous les détenus politiques loolu dañuy voté le 25 février kenn voté benn